Eh, jërëjëf jërëjëf waa Rési ci publicité bi am solo boobu eh, jërëjëf Serigne Mor Mbacke xam si dina ci waxtaan am solo xam naa ñu fàttali mbokk yi nga xam ne ñu ngi nopp ci ne ñu ngi ànd ak seen plateau spécial yi baaxoo amal ci koor bi di ci ànd ak THTV Xidma TV Waar wi TV ADS Pro Asma Xidma TV Leeri TV ak Touba TV su ko dee tom bi ñu waxtaane nag mooy e, jafe-jafe yi nga xam ne mooy am ci néegi sëy yi lan moo ci doon saafara ñu ne sëriñ bi yaa ngi tolloon ci leeral e, jafe-jafe ba ba ba tolloon wàllu fiiraange gi ëpp gi nga xam ne lenn li ci jigéen ñi lay doon lenn ci góor ñi ba tolloon ci wàllu <coughs> góor naka la war a ci digganteem ay soxna ma doon ci nettali xis bu am solo ndax dañ lay bàyyi rek nga àgg foofu nga tolloon incha allah. waaw foofu it eh, defee juróom juróom juróom eh, benneelu tomb bi mooy mm-hmm. jigéen ñi sëy yi mm-hmm. ñoo ëpp jigéen ñi sëy jigéen ñi sëy yi ñoo ëpp jigéen ñi sëy ak sëy dogan sëy yi mooy dem sa kër borom kër rek sëy nag aw doxalin la moom ba tey góor ñi am soxna ñoo ëpp jigéen ñoo ëpp góor ñi yor soxna góor ñi am soxna hmm. ñu ëpp góor ñi yor soxna hmm. kon am soxna ak yor soxna du benn hmm. am soxna mooy ñu fas ko ba diggal xëy rek yor soxna mooy mooy kon nag li li li ñuy sëyi te sëyuñ ak li ñuy yor soxna te li ñu am soxna te duñ ko yor moo tax sëy bu jag jafe bëggante bëggante gi mel ni mbàkki Tuubaa te te leen du fi jëm kanam su ko defee nag ba ko juróom-ñaareel ci jafe-jafe mooy leen ak reewande lay doon ak reewande nga am sa doom ju góor jàngaloo ko yaroo ko bàyyi ko ci sagoom ba mu xëy ne léeg nga takk soxna indil ko du xam nu nga ko war a yore faaw reew reewande ga feñca lay dundeek moom day dóor di saaga di jànni di xas du xam lan mooy àq yam war war yam ko war yoral wala di ko sàmm loolu na soo demee ba mënatu ko si porte day ñaan baat maanaam beneen sëy bu tas wax ne reewande ak borom kër ga lay doon reewande ga mën naa doon ca soxna si itam fa tey da am doom ji jigéen moo tax yoroo ko jàngaloo ko bàyyi ko ci nu ko neex ba xëy may ko borom kër mu doon reewande ga faaw faaw moom la fi moom la hmm. du jëfi ndigal du bàyyi tere doxe maa nu ko neex lool loolu loolu tam góor gu ci gu ca yor soxnaam gu ba ba ba xam ne mënatu ko yor réew na góob métti góob man day dañ dañ mu ci teqali ko ak moom kon ba na ci teqali ko goo xam ne euh, ñàkkub yar ak reewande mooy li ko indi ba ko juróom-ñetteel na mooy ñàkk maandu ñàkk a maandu ci góor ñi xanaa yooyu jàng jàng jàng ba ëpp xanaa ñoo xam am soxna ànd ak moom di daanoo ko jóg ànd ci lu met ànd ci lu neex ba xëy takkum ñaareel fàtte ku njëkk jàng ba tëdd sa aaw bii nga àndaloon ba dara du dara amutoo soxla ci moom toog waxtaan ak moom képp sax am ci yow mu mujj mel ne ab jàmbur ci yow su ma ne woon na fala tamilu kullal mayli fatazruha kal mu'allaq bu leen jàng jàngu ëpp ba mel ni kenn ka dafa di wut wala wala wala wala man kenn ka la amutoo soxla ci moom su ko defee nag kon wa an ta'du bayna saay wala waxarastum na ngeen na ngeen maandu ci jigéen ñi ak lu ngeen xër xër maandu ga nag eh, ba dañ ci juum ñu jàpp na mooy loo defal kii defal ko kee defal yi mën naa woote xam nga si téere fiqi sax dañu jàngale su fekkee da ngaa am ñaari soxna kii di di kii di kii di dania mën nañoo wuute te nag day ni dëkkaleeg mën nga ko jox appartement bu lëm mu dëkk cee ngir sa bàjjen yam yor ak nangu nangam ki nga xam ne ko yam maay nga mën naa doon benn naa yor benn néeg rek loolu na neex naa jàngale fii murit gi misaal da ngaa yor sa doomi sëriñ mm-hmm. ak yor soxna ab dong la ne yow na nga yore sa doomi sëriñ ji ak na nga yore sa sa moroom dong wi du bokk bu nee maandu nag dëgg-dëgg fa tax ñu koy wax mooy ci panaan mi mooy ay gi ay gi moom sërif ak dene ñoo ci moom mooy yamale ci ci ci ci ci genn anam mooy fekkente ne dañuy ay fan ñaari soxna bu bu bu bu ba mu ñaari fan dañuy am ndam ñaari fan bu dee maan ci wàllu jëflante nag mooy kenn ku nekk nga fajal ko ajoom rek naa koy faral di misaal kii dafa ñëw ne la portable laa bëgg nga ne ko portable lu mu jar ma la cinquante mille nga jox ko cinquante mille mu dem kenn nga ñëw ne la ay carax laa soxla nga ne ko carax lu mu jar mu ne mu ne six cent nga jox ko six cent mu dem mooy kon fañ nga ajoom kon maandu ak yemale de maandu ak yemale ah. kon mooy kon nga fajal ko ajoom rek ak ah, kee aajoom cinquante mille la faj nga ko kii aajoom six la fajal nga ko. dëgg dëgg kon loolu bu ko defee nag. Mm-hmm. li koo xam ne daa waaw waaw xam nga dafa dafa dafa yor ku ku njoole ak ku gàtt mm-hmm. aaw bi daa njool ñaare bi gàtt mm-hmm. mu xottil aaw bi huit mètres xottil mm. ku gàtt cinq mètres mm. mu ñëw attaqué ko xuloo ñu mm. ko da ngaa maanut da ngaa lu tax nga di ko xottil juróom ñaari mètre nga juróom mu ko jéggal ma damaa juum rek dootu am loolu kori la tabaski agsi muy jëndit ay dàll jënd ay quarante cinq ñaari cinq ci <laughs> sol ay dàll yooyu jom ke sol dàll yi ëpp ko mooy bëgg a ñëw ma ne ko déet lépp ci maandu gi rek waaw lépp ci maandu gi rek kon lool la mooy kenn ku nekk euh, nga faj ajoom rek mooy la ma waxoon léegi mm-hmm. teel na ci li jot na ko rek loolu amul hmm. su ko defee nag kon euh, te am na ci góor ñoo xam ne duñu fàttaliku démb moom moom du teew rek waaw bu ñu xasee amul seet daal moom ko njëkk moom daan ko fàttaluñ ko mm-hmm. ba ko juróom-ñaareel ci wala wala ba ko juróom-ñeenteel bopp mooy portable yi mm-hmm. ngi tas yu bari ni day nekk bitim réew woo soxnaam appel vidéo mu summi ko di ko won ay cëram ku góor kee di ko won ay cëram dagan na nag ci ñoom ñaar alxayri bu xasee jib rek kenn ko nekk sañ ngaa sa lépp moroom waaye la ca wóor de mooy koy enregistré di ko garder seen téléphone te téléphone dëkkul fenn man naa xëy xëy su ko keneen foree wala sañu sàcc ko fekk ci vidéo yooyu ya su dëggalu yàlla mën na ko publier yàq seen àdduna wala mu paan nga yóbbu ci réparateur bi mu dugg ci gis vidéo yooyu ya su dogalu yàlla mooy mën na ko piler wala mu dala ca mu dala ci santage su ko dee loolu lu ca am na su fekkee ne ca góor ga la jógee mu jot jafe jafe ja diggante soxnaam su fekkee ci soxna see jógee mu jot jafe ja diggante borom kër loolu nag garde ga ci téléphone yi mooy mooy mooy lu ko indi mën naa dem ba jur sëy ba tas léeg-léeg jigéen am borom kër am aw far ca wet ga am na audio bi tourné ci réseaux sociaux yàgg na fi ndaw su dafa bokk ci benn groupe groupe whatsapp Touba la dëkk màggal Touba jege kenn ku nekk ci dugg ci groupe bi ñu soññante jee màggal kenn ku nekk na war a teeroo gan ñaag na leen war a teral ak na nga leen taxaw mu dugg di def audio di di di di wax di soññee mooy tam laata mi daane far wi woo ko mu wuyu fàttee coupé audio bi ñu waxante seen waxi caaxaan ba joxante rendiw lépp jàll ci groupe bi loolu kaw ci la addunaam addunaam yàqu xam nga ni kooku moom bu nu ko dee daal di xam ne kii ab taxawaalukat la su ko defee da koy wàcc tal lépp téléphone moo ko indi su ko dee kon yooyu Euh, mënuñoo lim lépp waaye loolu daal yenn la ci jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi am ci biir sëy yi mm-hmm. ba waral tas gi bareek problème yeeg mm-hmm. xuloo yi jàppante yi mm-hmm. lépp yi daal yenn la ci yi nga xam ne mooy di ko indi euh, macha allah jazakumullahu xayran jërëjëf sëriñ moom bak xam sa leeral ci muskilaat wala yi nga xam ne mi ngi am ci biir néegi sëy yi yaakaar naa ne ku xool gis ko ku làmb yi itam daj ko ndax ñëpp koy dund waaye ni ko leeral dafa leer naññ eh, la ci jiitu it mooy nuñ ko waxee la la woon daa wanniku ba tax eh, ñenn ñi dañuy faral di wax ne njabootu njabootu kanaara doon donte loolu nag du lislaam waaye dayam ñoo xam dañuy sàgg ne seen njaboot ñàkk yar ba tax ñu doon njabootu kanam ci nga xam ne faaw doom yaay jiitu seen baay topp ci ñoom bu leen bëggee forcé nag euh, takkaleen soxna loolu du sotti ci lu dul seen bëgg euh, nga wax itam ne wàllu ngor ak diine daanaka amatul te loolu moom boo ko xoolee ci fànn bu nekk rek ci jëflante yi da nga ko ciy gis daanaka nit ñi alal da leen a jiital euh, bu dee ci wàllu jigéen nit ab taar situation ni nga ko waxee ni nga ko waxee léegi da ngay gis koo xam ne day ngoro ji di luye luye taxi bu rafet teggi làmp ba wala mu mu ab bu ato wala yu mel noonu bu ñëwee wane ne moo koo xam ne dañ day daa dem du ngoro ji bu ñëwee joxe dix ne demal jëndi boisson <clears throat> jëndi boisson deux mille ñu war koo delloo weccatam mu ne ko gardel gardel weccat garaaw mm-hmm. mu sëy si nag boo ko joxee fukki dërëm mu jënd xorom sax bu ñëwee mu ne ko ana weccat ba mm-hmm. <laughs> jafe-jafe yu mel nga xam ne kon jaay taar bi jaay prek bi ak ak ñàkk bëggante gi bëggante nga xam ne léegi daanaka dañuy xemmem rek ni ko waxee léegi ba wax na ko euh, ba ci topp it mooy mooy kujje gu metti gi nga xam ne loola kujje gi mën naa dem ba bay bay law ci seen doom nga xam ne doom yi ñu ay doom mbokk bàyyi waroon doon benn dañu mujj féewaloo duñ juboo ngir lan seen wajur seen ñaari seen ñaari seen ñaari yaay yi juboowuñ euh, wax nga tam lu aju ci reewande gi nga xam ne léeg-léeg day am ci góor ñi day am ci jigéen ñi te loolu ñàkk yaru moo ko waral ak ñàkk maandu gi am am ci ñenn góor ñi waaye bi nga mujjee di téléphone yi nga xam ne daanaka naam mi ngi defar waaye li muy yàq nag moo ëpp kon loolu di lu am am solo loo xam ne euh, mat naa bàyyi xel loo xam lenn lu ci nekk rek li ñu ci duggee traité nga ko yaatal ko lool lool lool waaye day mel ne bu ñu xoolee lépp lépp nag day dellu rek ci ñàkk gu ñàkk waajal ndaw ñi ñàkk leen a yar teg leen ci yoon bañ xam diine te di ko dund xam nan la ñuy jëflante ak kenn ku nekk euh, ka ka ko yàlla booleel mu seq ak moom àddina moo xam ne mu jëflanteeg moom kon tamit lépp boo ko boo ko tënkee xolaasatul xawl da dellu ci rek wayjur yi wala kilifa yi nañ góorgóorlu ci yaraat seenu njaboot tegaat leen ci yoon te xam ne àddina amul solo euh, macha allah sëriñ bi la mi leer na lool lool lool ñaan suñu borom defal tawfiq bu baax a baax. kon xam naa euh, euh, dañuy ñëw ci sëñ Cheikh naa rek su ko balaa ñoo ñëw ci xulul yi ñëw ci sëñ Cheikh naa mu dikkaat ak ñun ci xasida gu gàtt rek su ko ñu door a nag ci xulul yi nga xam ne ginnaaw wax nañu ay ay ay problème léegi nag lan mooy lan la jaakaar ne kon buñ ko tegee war naa mën a nekk solution ci problème yooyu sëñ Cheikh naa xam naa ñu dellusiwaat yooyu ci xasida gu gàtt rek incha allah bala ñoo dellusiwaat ci sëriñ يا مكرم ضيفي جاء ران كان أو سارا يا ماهيا عن قيدي من قبل أو زارا ناداك في البريبة بالبر خادمكم واليوم خط له لله ما اختار أكرمته بغير أمن وتكرمة فعازا جملة عضي أستار عملته من ساخي إن فايسا أبدا عملته من سخاء فايزا أبدا غلا وعيبا لكم لا يدخلون نارا خليته عن سوى رضوان خبل كما عليته بمنى دارين مبرارا لنزرا لوك عيش تتبدا كماله خدم يهوى أو تارا ولعله نبيا زن منهم سيفا وكل ما في در عمدا الله تعالى لغيره ينتهي إبليس في بيت كفاه ربك تخمينا وأكدارا أنت الذي يرسل للمستوى على من ظل عليك الذي تفضيل قدارا إني لجارك يا غير الورى بادا عليك سلم من كل له زارا صلى وسلم باخ لا شريك له عليك يا من به لخدم زار لخدم الأبد غديت لي أربي بعودا يا خبل اليوم أو زار لخدم الأبد غديت لي أربي موجعني خول اليوم أوزارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله جرجف جرجف سيدي شيخ ناتي نجان بام سلام جرجف جزاكم الله خيرا يالنا ليال دفل التوفيق دفل مبوتم خسري بارك شيخ الخديم xam naa sëriñ bi bala del si bañu bala ci xolu yi mel na sama technicien yi da ci am ku bëgg a jàllale ay laaj xam naa ci li jot a romb ci waxtaan wi sëñ Abdou Lahad Guèye sëñ kon xam naa da ngay ñëw jox la kàddu nga may laaj yoo laaj sëñ bi incha allah. waaw kay jërë ngeen jëf tey ñuy toog moom plateau bi waxtaan am na ay laaj am nañ ci ñeenti nag foofu ñu ngi ko jottali kilifa bi su ko defee mu am ay tontu ndax euh, gis nañ li ci solo daal lañ lañ indi euh, ci njëkk euh, yamale gi nga xam ne yamale wala yamale wala maan ban la ci islam wax ci ku yor benn benn ñaar wala ñett soxna ban la ñaar yëpp xam nga. maandu daanaka sori ñaar yi ma maandu ak yamale waaye nga gëm ne kenn ku nekk soxna la ñun soxna la àq ja soxna am na ku ne xam na ko ñent yi nga xam ne mënut a ñàkk yëpp nootal ko ki ne wasu al kiswatu an nafaqatu al watu as mooy dëkkal waddu dundal ak dëkkoo ñeente su fekkee matal nga ko ci kenn ku nekk rek mooy mooy mooy yamale nga ah, maandu nag mooy bul bul bul bul xañ bul xañ kenn xam di ko jox ko ca des ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk def loolu mooy maandu da nga gis koo xam ne ñu nga koy xam mooy mooy jàng jàng rek mooy jàng nga xam daal da nga gis ne kenn ki daal da nga koy teg ca kaw donc fekk ñoo toll ñoo tolloo dara ji ñaar wax bokkut la ñu waxoon ci diggante eh, Sharif ak Daniya ñoo tolloo daje ba noppi nag maanaam sa sa sa nga xam ñëpp xam nañ ni kii nga gën bëgg kon dañ ca xol moom maa doy xol ak yamale ci xol moom mënta am moom ndax suñu borom moo bind xol yi te yamale wut waaye ci ci jëf ba ñëpp xam ne yow da ngaa ci lii loolu mooy ñàkk maan moo de kon fexe ba ma maan daal mooy mooy donte am nga koo gën a bëgg it moom bu mu fees ci kaw ba ba ba ñëpp di ko gi mu wutloo soxnaam. soxna si eh, bañ. Ah, wala yeneen at yi nga xam ne sant. su ko digalee mu ne ñafa muuti loolu lan nga ko digal moom muuti si xam nga loolu ndigalal lislaam la njëkk góor gi di ko digal. jigéen lislaam da ko digal muy muy sàngaaw yaramam muy mu di ko muur. maanaam sutura suturaal awraam taxaw jigéen lépp mu awra la ba waaye ku yor soxna ku nekk nag ndigal la ko lislaam digal nga di ko war di fedd ndax yaay kilifaam kon ku nekk sa njaboot yaa leen war a soññ ca leen lislaam digal ci jaamu koog ci wàllu ci wàllu rafetal kon war na ko mu di ko mu di ko digal di ko ca soññ digal ak soññ nag mooy mooy mooy la ko ca war waaw su ko su ko defee rek na ko defee wàcc na soo koy deful nag léegi nga xam ne maa ngi ko koy digal muy muy la waaye mun na fekk wàcc wàccoon ak xàq ji rek xàq ji na ko na ko digal li di ko teel li mu ko teel moom moo la ca war. man nag a ñëw ci suñu tubaab di ko kalaam ak soxnaam di ko man moo jaaxal mu la amul dafay xew julli mu ko dafa nangu te jaamu yàlla mu ko waaw mbàkke ne ko waaye yow jaam nam ngaa yàlla mu ne ko am ndax mën nga saa booy julli ne ko ajee na julli waay mu ko de mbàkke mën naa ko mu ne ko dee ko def saaba jàpp ba noppi ne ko acca na julli waaye te daal di julli yow su dee bu ëllëgee nga jaar fa ña daa julli jaar mu jaar fa ña julli jaar kon kon kon mooy def nga la la war wàcc nga waaye su fekkee digaloo ko ko nag ëllëg doo jàll mu ko te lijjanti woolo la waaw ki nga yilif digaloo la ma digal ëllëg faaw def na laaj dañ laaj ndax ndax doon nga ko digal fekkee doon ko ko digal wàcc nga léegi moom moo ca des waaw waaye waaye daal yow kon nga xam ko jàpp ne kon digal ak soññ ko moo la jawar soo ko defee rek wàcc hmm. na kii nee na moom ginnaaw jafe-jafe yi yëpp nga euh, génne ci waxtaan bi am na ci waaw sëy góor ñi ci bu ñu wutati soxna yan yan critère lañu war tànn soxna daal yooyu def naa dana ñëw ci ci ci tomb yi ci des mooy tomb yi ñu indi solution yi incha allah loolu loolu kii neen tamit ñeenteelu laaj bi euh, jigéen gi fay yóbbaale ay njabootam euh, ci kër yaayam waaye bi mu ba léegi borom kër yi moo ko li ñëw bu njaboot loolu de kenn ku nekk wàcc wàcc na yoon ndax fay yi digle ñu ko ci ëpp sëy fay jigéen day toog ci ëpp sëyum sëy day làmbaamu tas rek waaye fay moom euh, ak mooy yàlla la lu dul nag lu dul nag nga xam ne la ko da ko deful ci àq yi ko yàlla sant loolu sañee sa jaan ñaani baat su fekkente na xëy na danga ca jub eh, jub jublu man naa maanaam wëlbatiku ngir mu del ci maanaam nga def loolu boo mën naa xam daal am na yëlle ju ko ci mën naa bañ a nekk sikk waaye fay nag taxut sëy ba tas ba tey sëy baa nga fa te nit ku nekk daa fa lam loolu yàlla sant ci sa njaboot mooy nga toppatoo leen bu dul moom it sax moom sax njaboot boobu moom nga nga nga ba lal ndax fi ne da ngay gis ne ñu bari ñoo xam ne bu ñu xasee tàkk seen soxna doom yi amatuñ ci soxla seen yàlla yu féetal mooy mooy ànd ñoom daana ko jëm mooy fay njàng mooy toppatoo nga xam yàlla day mel ni juróo leen te yàlla teggilu la waru waru gar la la war a ci ci yar jàngale la càgg ak toppatoo leen loolu gi la wax su ko defee nag booba ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk xam la ko yàlla gàll te ñàkk xam nga nag taxul taxul mu teggi ko la kon rawati kon ki nga dafa fay rek kon amul amul soxla ci ñoom wóotewut kon kooku da nga xam ne bu tasee foofu foofu la jëm kon ndax ne kon wàcc naaw yoon ci te wàcc naaw yoon ci fay gi waaye te wàcc naaw yoon ci ñàkk ñàkk topp tooga ak njabootam ak mën naa am nag mu jublu ca yar ko ndax léegi jigéen dem euh, te te lam dem du la ko jar nga ne dama ko yar te sa bopp bañ ko bañ bañ bañ bañ bañ faa dem waaye mën naa dem ba loolu xëy na yar ko euh, ba bu deesee loolu la jot jërëjëf xam euh, naa beneen laaj bi ñëwaat léegi kii mu ne ki bàyyi fii soxnaam dem dem bi réew euh, dem demee écart fa soxna euh, bu ñu fa nekkee ba ñibbi si waat fii ànd ànd ak soxna soxna sama takkoon ci ci réew mi hmm. bu ñëwee fii nan lañ koy séddalee ay waa xam nga ak ay du lu ñuy fay ak ay du lu ñuy fay su ko indaalee ba tey dañuy continuer di ay ayaloon donte kee fi desoon xanaa xanaa bàyyi ko fi ñëw waaye su suñ àndee ñëw rek moom faaw dañu ay ay ba ndax du caagi ne nag dama day jagleel kii la ngeen teel teel féete loon bëgg tax mu mu mu bëgg a xëy na ci ci jagleel ko bis bu xasee bu ñu xasee nekk dañu ñaari soxna rek alaa kulli xaal ca kaay lay tege waaw du lijjante leen ak moom la nag loolu moom leneen la waaye ñaari soxna boo leen yoree ba ñu xasee nekk nekk benn barab rek nga nekk na ñoom faaw dañu ay ay jërëjëf sëñ bi xam naa ah, tontu yi am solo ñi ko waxtaan itam bari na bari na laaj ñu ngi jóg waaye yooyu lañ tànnoon pour indi ko xam ne ëpp solo su ko defee tamit eh, bari nañu jaajëfal bu baax a baax suñu gannaaw ñu ñu ànd ci njàng mi ak ñu ngi ci jaajëfal bu baax a baax xawaat yi xam naa ñu bàyyi leen ngeen wéyal di tànn incha allah. jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad ci laajam solo yi nga xam ne ñi topp waxtaan bi ñoo koy yóbbante ñu jàllale ko ci sëriñ bi tontu ci tontu yu am solo yooyu loolu bokk na ci biir am solo lool ci jataay bi waaye jërëjëf suñu Cheikh Ahmad ko suñu Abdoul Ahad waxee rek mbokki taalibe bi ñu lay bàyyi xel bu baax a baax te di la bëggee te di la ñaanal ni ko yàgg defe kon sëriñ bi ni ñu ko waxoon léegi xam naa ginnaaw tudd nañ ay problème yoo xam ne mooy waral juyoo yi am ci néegu sëy ba tax euh, ñaar ñu waroon a bëggante war a war soppante war doon benn war a dimbalante ci yarub jaboot bu ñu amuk déggoo ci seen biir ba tax loolu duñ ko man wala sax mu jur teqalikoo loolu jur yeneen gàllankoor yu gën a mag léegi nag yan solution lañ lañ lañ lañ jàpp ne yow bu ñu ko tegee mën naa saafara gàllankoor yu mel ne yi ñu doon wax léegi incha allah. waaw ah, ah, solution yi xam naa duñ mën a tudd yëpp waaye dañ ci tudd yenn rek ba ci njëkk mooy yar sag njaboot def ci ñoom ngor ak diine ak mbañam rus mooy tax ëllëg lépp lu mu dugg. dana ca sàmm ngor dana ca sàmm diine dana am it lu muy jomb def ndax bànneexu say yàggut su bànneex ba jeexee nag ngor rekk fa sës ngor googa nag moo ca bàyyi te yar yar ko ca lool nag mooy tax ngor googam mu am ca ba ko ñaari ci solution yi mooy ñu war a ànd cib sëy di ànd ñu war a ànd suñu àndu rek ñu wëtt ànd danañ ànd te ñu wëtaand suñu àndi ànd ba du yàgg moo tax wolof di wax ne ku wàcc ku sab ànd ànd bu dem fekk ci borom dañ naan ànd waaye du ànd ànd la du wàcc it wàcc la ku wàcc sab ànd maanaam ku bàyyi ku bàyyi ña nga war a àndal koo àndle ba dee da nga fekk moo ànd ak ñoom war a àndal ñoom

kenn ku nekk ci ñoom xam sa àqi moroom sàmm ko nawlante mooy tax kenn du ci xeeb moroomam kenn du ci woyofal moroomam kenn du ci yàb it moroomam su ko defee sëy ba day rafet day neex ba ko ñetteel mooy bëggante gu sincère wax ne benn intérêt àdduna du ko lal waaye dañuy sëy te yàlla tax julli ci jaamu yàlla julli ci juróomi yëf juróomi xikma yi ñu waxoon di ndimoon wax ne mooy mooy mooy xikam yi tax ñu yoonal sëy suñ bëggantee bëggante gu wér ba noppi jiital pas yooyu dana jafe-jafe dama sam incha allah ñeenta bi ci solution yi mooy communication sëy communication la dañoo war waxtaan di diisoo ci lépp wolof day wax ne réeroo amul ñàkk waxtaan am nga dégg ci kon su waxtaan di am da kon réeroo du am boobu nag moo amatul léegi ci sëy borom kër day toog soxnaam toog seen doom toog ku ne sëgg yi téléphone am kenn ku nekk di di di manipuler ña ngi ca whatsapp ya ña ngi ci tiktok ya ña ngi ci youtube ba ña ngi ci facebook ba kenn teel tool waxtaan ak moroomam mbaa muy disoog moom ci lenn téléphone yi dox seen digganteeg digganteeg lépp la ca toppit mooy di nangoo muñ muñ muñ gi nag ñoom ñaar ñëpp la jigéen ju jub xocc xocc xocc xocc mel na ko bëggee la nga bëgg lépp nga fekk ko ci moom daanaka mustaxil la mun ta nekk kon faaw da dangay da ngay am lu mu baax le am lum sikkile nga jël lam baaxle muñu ko lam sikkile soo munta soo soo munta mu ne dooyoo kenn ndax ko sikkam jigéen it benn sëy bu neex it amut mooy koo mën a sëyil rek faaw da am loo loo weelu lu metti kon lay tax nag nga mën a toog ci sëy bu mooy gën a gommuñ Sëñ Tuubaa daana ko daana ko diglee dafa am comme massa joxe ku bokk ci ak njabootam mu dem taxawu fa daal di delsi ndikee ba ñëw ci sëñ bi ba génn sëñ bi génn wax ñu fa toogan na ndax amul ko leen romb léegi dugg fii te génnaat ñu ko ah kay de dama ko joxe mu delsiwaat ndike ma di ko laaj muy bëgg a wax ay ay lay mooy ko dee defal naa ko daa am lu desoon ci sa dénk rek mooy sëy coono bu sax dàkk la ak naqar sax dàkk coono bu sax dàkk ak naqar bu sax dàkk te jullit day muñ coono asgo day muñ aw naqar te soo dee ko ñu tuddi ma tudd da nga doon ci yooyaat leen mooy danga nga doon asgor mbaa nga doon jullit te na asgor jullit mooy muñ aw naqar asgor mooy mooy muñ mooy muñ coono kon su ko defee kon faaw kon gannaaw ah, naqaru sax dàkk la kon faaw ngeen nga sëy konti kon faaw nga nga muñ ko gannaaw coono bu sax dàkk la faaw nga nga mën a muñ soo muñ rek soo muñ rek say say say say say kon muñ googu itam bokk na li nga xam ne solution yi tax sëy ba mën a mën a mën a mën a rafet mën a continuer euh, la ci topp bi mooy mooy kenn ku nekk di comprendre sa morom euh, tey tey tey tey tolore comprendre sa morom tey tollore xam ne njuumte day am léeg-léeg def yam loo xam ne njuumteel góor ga lay doon ngay nangoo jéggale njuumte ya léeg jigéen ja juum ngay jéggale njuumte ya sool day am rek tollorante ak jéggalante itam suy am rek mën na bëri ba tey sëy bu mën naa bañ a benn jafe-jafe ba ca topp nag mooy ñuy am ay référence Euh, jigéen na fex ba am ay ay repère koo xam ne moom lay xool jéem roy ci moom mu luñ manqué nag lool waaye loolu bokk ci moom ndax ne soxna jaatulaahi mariama doy na sëkk roykaay ci jigéen ci mbaax ci sell ci rafet jukka ci jëflante bu rafet suñ ko royee rek njuumte du am fekkee roy nañ ko dëgg dëgg dëgg njuumte doo am euh, ndax jikkoy jik mboolem jikkoy sang yi nga xam ne mooy tax nit ki mat ab jullit dëgg dëgg mat mat doon ab jullit xàqan doon as gor su ngoram ma sëkk yëpp dafa daje ci soxna soos yi ba tax na boo ko xoolee euh, roy ci moom rek Euh, sag dund man mën naa rafet su ko dee dañ ci ngir ay jikkoom nag dañ ci indi genn xasida kepp ci yi def ci moom giñ giñ mujj a def ndax ne guñ def gu nekk dañ ci indi ay jikkoom baax bu ko defee ñu ñu ñu ñu mën caa xame mooy kan ñu roy ko ci ay jikkoom yow doxalin maa ngi dellusiwaat dellu waat way fi te taggaat ki sax ci saa xol di na jaara may doomi daara bay ndayi daara ca lañ ko nampal diine la nampoon ngorit la nampoon tënku na jàppoon ca lañ ko tànnal ngor la jiitaloon ci lu man doon te aw ci aw yoon ba yegg yeggal sariya lay aw dox ci ba xëy raw teyit dadaa daw lépp lu yellul xaqiiqa lay fas ba lépp lum gis yàlla la cay gis doxam ba yéexul mësta xam lu ñaaw mësta wax lu ñaaw mësta def lu ñaaw yar jiital xamul lu yiw jëful ludul yiw amul lu dul yiw sell na sellal réyoon na pëstéef di ji tànneef doy na doy royteef te doy nu wéttal manoon teraanga te saaga amul yaraanga yeyoon na sargal xamunu sikkam mbaa benn gàkkam mëneefu ko jam lenn ma ñaawul nayul te ngottul rëyul te siisul xatul iñaanul te mësta njistal itam jënneewul yéene jënneewul ci lenn yàqul lañu ko jàngal xelam ma gàttul jëfam ju tuutul mbiram ma dëngul dara ma sikkul ngën ji sharifa maami xalifa yu di kilifa mayam ga sët yi mu am tey ñépp am yi mbay te doon ñu ñuy roy ci luy defar xol kii nu yilif tey kii nu yilif tey di sët bu am woy Seex Muntaxa kay doy nanu tegtal sëtam yi am ndam mëneefu ko lim lépp liggéeyam bu mat la dëggal jëllale naa doom ya ngir amuñ ñoom kem ku ne jagleem gañu ko tànnal moo fi gën yi doom bul ne danga juum ku nekk gis ñoom liñ lu fi indil te moo di sëñ saam ma sanc woon saam te mooy magum daam ma ñëpp jiital te moo di sëñ saam ma sanc woon saam te mooy magum daam ma ñëpp jiital xadiimu àddunaan di mbër ma xëy daan ku ne moo daan te nga ma moo fi gëni sët te kenn sikkut ne soxna see sut ku mas dendal bu di yaaram dëgg amul kem moo ko bari ndam jaloore yombul jaloore jay ndam boroom da koy am ci lum jëf ak jom ci pas-pasub xol soxna si daa mat mës amuk jot ngir la mu teg bët da doon lu yombul te mooy ngërëm la ba woo fa yàlla defoon na ful la ca wut ga sooyul keroog ba muy wut loola mu doon wut da ko wut fit farlu te sellal digonte koy xëy tey jëfam rëy ba làq ciy may lu kenn liggéeyu ndey ja feeñ na ca jëf ja am na ca ndey ja lu rëy feeñul ndeyam liggéey na mbayam ma ñor na meñam ma daj na àdduna wërngël maam assawaalu lahaa nawaalu xamal na mbooloo defar na ay xol daara la sampoon di xamle aw yoon te aw ci aw yoon liggéey ba sottal yàlla gërëm ko sëñ ba gërëm ko diina gërëm ko di ngeen ji ndimbal fayam ga seebaat ca doom ja feeñaat barke ba yokkaat muy ndandi tuutul mu teg gontaat mel ni ko dooraat di jëf ba làqaat lu xel fii la rawee kem jur ko amul kem ba képp kuy lim jar ko ne bokkul bamba amul maas démb amul maas tey du am maas ba bëftu bi wol yàllaa ko génnee ca gaaya bernee ne gaaya keenee na ngeen ko jiital du seen morom kat du màppandoo it na ngeen ko teg bët topp ko ci xel gaa ya daroon ko sax ci dawal ko ku ney jëfal ko ba xëy di ponkal moo di payug maam jaaretu sun maam te bu ni woon kaam du am du yombul am na boroom saam dellu ca teg daam xabibu ak maam faatila la nàmpal ku ci ne mbër la mu rëy tagar la bàmba la yàlla tànn ne jiitul kon soxna baali la yàlla faale fa ko joxaale lu kenn làqul ci xeeti xéewal yu mel ni am yol mbaama mbaawaami wuy wal mu duy ba feesal mayam ya law na ku nekk añ na ba regg daj na fépp te jeexul jaaraama maam jaa rayaa yeyoo jaa jëfal sa jëf jaa dalal sunuy xel dalal nga sun xel seral sunuy xol amul lu nuy xul wàcc nga tëddil yaa rabbi dollil maam bu so xéewal yërmande juñ ful dolli ko njëggal maxat mu yam fii lépp xajul fii ishaara tak fii li kulli aaqil balaa nu fiy jóg di tëddi ciy sëg nan fi doyil sëg ci at yu yi ful te ànd ko wér mucc ci tartar ak lépp luy lor dolli ko xéewal te dolli ay may sëtam bi koy way te xéewalam doy mu gën di sargal moo xam sa diine lañu ko miine li mu ko yéene yàlla na koy dal jullil te sëlmal ca ka nga jiital mag ñamu àndal ak ñamu bokkal solli wa sallim alal mutammim tabum amu yam saxal fi nun jël kon defe naa jikkoom yooyu su fekkee xool nañ ko te roy ko ca ci aw doxiinam aw jëfiinam aw jëflantiinam moo xam diggam diggam ak sëriñam ba ko yàlla booleel moo xam diggam ak ay mbokki daaram suñ ko ci xoolee te roy ko ci rek benn jafe-jafe doom soxna jaar sax sori na buñ ñëwee ci ñabu ñabu suñ tubaab gi nga xam ne am na ci ñoom ñoo xam ne fekk nañ leen fi kon soxna su gaawaan soxna meen gaabu soxna moomi na soxna may ñëpp da ay ñoo xam ne koo koo ci xool rek dafay doy sëkk ci yow royukaay kon roy googu bokk na ci solution yi la ca des na ñu tëje ko lu ci sëñ Tuubaa dénkaane dafa dénkaane boo xam ne wax na ci sëy waaye da dafa am yu ko dénk yu bari yu mboole la dañuy indi lépp da ndax ndax lépp daa am njariñ su noppee tëjee ko waxi sëñ Madi Lamine Gaye borom si Sëñ Tuubaa bi mu nekkee Jolof ba fay bëgg a jógee ngir dem Njaareem dafa julli gee ba noppi loolu Sëñ Maxtaar Penda Jang moo doon bëkk néeg bi mu ne ko ndax fere yëpp teew nañu mu ne ko ñu ëpp di teew nañ kon nañ wàññeen ndax dañu bëgg dellu ci réew ma waaye baloon dem nag ma dénk leen juróom benn ngi yaxanu ku ko sox ci yéen faaw def juróom benn ku bëgg a jege yàlla ci yéen nay farlu ci jàng alxuraan ku bëgg a mucc ci mbugalum bàmmeel nay bari salaatu ala nabi ku bëgg a bari la ba dootoo ba dootoo ñàkk loo am delloo ko yàlla sa borom ku bëgg am ay àndandoo del aw ci aw yoon ku aw ci yoon faaw jot nit mbaa nit jot la <clears throat> ku bëgg a mucc bul tooñ mukk ngir koy tooñ du mucc te kenn mënu ko musal ku bëgg a noppalu bul fayu mukk ndax kuy fayu du noppal te kenn mënu ko noppal daal ne yaar yi rekk fi nekk nag <clears throat> aw yoon aku ñal kawul ci yoon wi ko ne ne la woon ne yaa ngi ci ñal yi ñal woow yi nag di ëpp ci nit ñi ca lañ jaar ma bëgg leen leeral nag fa muy mujje ka ca te wàcc ko dana aw ñal de ka ca te wàcc ko danga dox ba sonn doo jotub dëkk mbaa nga weesub dëkk yi wéy te doo ko yëg te ñal la waa ko waral pakk dana la féel dana la jam doo for dara te loo for kenn du for di la ko jox kenn doo da di la yóbbaale it ni dégg ngeen ko ñu ne waaw ne ma wax leen ni ngeen di jaboote njëkk ngeen di am jaboot suñu maxtaar pend ja ngi yooxu ne ko alhamdulilahi mbàkke lii da xamal naan naan dana danañ am jaboot mu ne ko ci dem ba yile fukki nit mbaa lu ko ëpp nga woo leen ba ñu ñëw nga digal leen li nga leen war a yàlla rek a tax ñu jóge fi juróom-ñeent ñëpp lank kenn rek def ko ca bu ko xeebee sa bopp jàpp nga bu leen ko sikkee jàpp ne dañoo amatul ay surga santal yàlla sa borom te xam ne nag moom mi bind ay jaam taniwale ci ñoom ngir ba mu leen bindee ba noppi daf caa teg ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun te teewul li ëpp ci nit ñi dañoo jàdd te mënoon naa daggub yar teg ku jàdd moo la ko xasaas te defu te defu ko te moo leen sàkk moom leen yow nag moom sàkkoo leen moomu leen dañ la sagal jiital rek def la njiit kon muñ war nga cee mën a am dégg ngeen ko ñu ne waaw nu wax leen li ngeen di yor jigéen ñi njëkk ngeen di ko yor loolu moo soxal moo ci soxal tem bi mm-hmm. ak ñoom da yàlla da leen bind yenti jikko yoo xam ne moo tax yor leen jafe mm-hmm. waaye yéen am na yenti jikko yéen war a yor su ngeen leen bëggee yor mm-hmm. naa leen wax yëpp insha allah ana yenti jikko yu jigéen yana dañ lay tooñ njëkk laa mer duñ la gërëm te duñ la yërëm waaye da ngeen leen di jàppee rek gone ko am taxawaay mooy borom yële yu gudd rek ana seen yent ji ko yana da leen di mën a njëkk ba noppi di leen muñal di jéggale te jëlale te seet ne jigéen di ñu la jox càmmiñam la ca kër ga li nga def ci moom ba tax ñu jox la ko soo ci defoon fukkam mi kenn du la ko jox kon manqué tax ñu jox la ko tey ngeen bàyyi kuñ ci jox soxna nga jàpp ne am nga jaam déedéet yéen ñëpp jaamu yàlla ngeen dañoo bëgg rek ngeen ànd kon fexe leen ba lu ngeen leen di digalati na fekk ngeen di ko def lu ngeen leen di tereet na fekk ngeen ba ko tey tooñ guñ leen tooñati lu mu rëy rëy rëy ngeen ja ngeen yëg ne yéen a ngi tooñ yàlla lu ko ëpp te mi ngi leen di ra dan bisimilah dégg ngeen loolu ñu ne ko waaw mu ne bëgg a jug toogaat ne su ngeen gisee may sonn ci di leen digal lu baax te bëgg ngeen sax ci leen tere lu bon te bëgg ngeen ba ko mooy day def na saa yoo saxee ci lu baax loola ab safaan jege njëlul tiite ga mosul taxoo ko jóg daan yéen ñi wuyu ak njëbal ci sama tur yi ma dénk leen rek waay ku ñëwati ne leen dama lay jébbal sama bopp te yàlla rek tax da dale foofee ba ba kenn ci yen di faatu wala yéen ñaar ñëpp bokk faatu maa ngi leen di dénk waay fexe leen ba bu ñu xamante ci yéen bëgg bu ngeen leen gën a bëgg lu dul yàlla daal ñoo ko dimbali na ñoo ko jeexale rek hmm. sëñ Mat Lamin Gay borom fi doosu moo ko wax xam ne ñeenti xeeti jigéen am ki baax ci nar a baax ak ki kenn mënu ci moom dara ci baax mooy ki nga xam ne xol ba day baax xel ma baax jikko ja baax boroom xol bu baax day nangoo jëf say ndigal tey bàyyi say tere boroom xel mu baax day xam lu jekk di ko def xam lu jekkul di ko bàyyi borom jikko ju baax day yaatal ñëpp xaj ku mel nii ba la ko yàlla joxee na ko téye téyin bu baax te sante ko yàlla ki nar a baax mooy itam ñaar la kenn ki day koo xam ne xel ma daa jotagul jëmm ji kooku bu la ko yàlla joxee danga koy muñal te bañ koo yàkkamte su demee ba xel ma jot jëmm ja dee sa mën a ànd ak dee sa mën a jëflante ak moom waaye boo ko yàkkamtee mën naa sabab tàggat ba noppi keneen war ba da bàyyi xel keneen ko ñaareel ki nga xam ne nar naa baax mooy ki nga xam ne dafa jaaroon ci yeneen loxo dooru ñëw ci say loxo loxo yam jaaroon waataay wañ ko fa waajal bokkut ak sa waataay yow kooku mooy itam da nga koy muñal waataay yam ëndaali nga di ko dindi benn benn su yooyu jeexee soo ci defee say wat waataay da ngeen mën a ànd waaye moom soo ko yàkkamtee mën naa indi damm damm bu neexut a jàng ki kenn mënul ci moom dara ko ñetteel bu la ko yàlla joxee na koy jaay jënde ko ku baax na nga koy def mooy da koy téye téyin bu baax su ko defee gox ba nga nekk ka fa gën a gàtt xel dana xam ne ku mën a yor ko ku bon kat mën naa yor ku baax su ko defee su amul ku baax dafa doon daal fa jéem tànn su ko defee ku am ku baax indil la. kon kon ma jaay ko jënd ko jënd ko baax kon ab dénk la boo xam ne kon euh, ki am soxna kon bu bu fekkee bàyyi na xel yii rek seen mu ànd seen seen nekk su bàyyi xel la ci suñu tubaab dégle ba tey seen mu ànd dana nekk incha allah. Euh, macha allah jazakumullah jazaytum xayran sëriñ mel ne xolaasatul xawl mooy mooy mooy li fi nga daaneele te mooy solution yi. yaakaar naa ne problème yi bari na bu ñu dégloo waxtaan wi kenn ku nekk xam na ne li li li ma waxoon léegi rek li li sëriñ bu wax du lu ñuy du lu ñuy dégg ci àll waaye kenn ku nekk da koy mën a làmb di ko daj mën a xool di ko gis muy lu jaaxal ñëpp waaye yaakaar naa solution yii mu teg benn buñ ci jël mu saafara lépp waaye rawatina nag li mu mujje te mooy am référence am royukaay te ni ko waxee xuma lu ñu amut waaye loolu bokk ci muy référence soxna Jaara mi ci tudd njabootu Sëriñ Tuubaa gi ñu doy na sëkk euh, rawatina nag ñaari ñaari dénkaan yu mujj yi sëriñ bi ak dénkaanu ki nga xam ne moo ko defar boppam ba gërëm ko muy si si ma lewin gay te daw si loolu de lu lu ama am solo xam naa bala ñoo ñëw ci sëñ Cheikh na ci xasida gu mujj gi nga xam ne ci lay tàggatoo xam naa maam jaara yi lay doon ndax moom ñeen ko ci moom te ñu ngi ko doon bàyyi xel dafa mel ne li li li li nga doon wax ci ne euh, soxna Dia sax sore na waaye boo ñu xoolee ci yeneen jigéen ñi rek dañuy nattali ne sëriñ bi mi nga xam ne moom lañ dëgmal bisam moo war a doon juróomi fan ci koor maamam di soxna Fat Dieng si la libaas ma xisa bu ñu nett nett ci bu bu bu yéem boo xam ndax daa jamono yooyu suñu muda si jaxate mi ko yoon jamono demewul noonu neen daam am bis boo xam ne da ko tàgg woon ngir dem seen kër ngir bu demee xëy na ginnaaw ñoom xam xam nañoo embarqué man koo <coughs> dimbali ci kër gi ba mu demee nag ñu di ko waajal ay waajtaay waajtaay fekk suñu as neen da ko ne woon boo demee bul fanaan waaye bu demee ne waajtaay ñu ko doon waajal nag yeex yeex a ba mujj guddi mu mu mu féq féq ne damay dem ñu ne ko xaw da nga fanaan ndax munoo bañ munoo bañ a léegi bi mu bi mu fanaanee ba xëy suba nag waaj ñu sëfal ko ci ay ay ay ay fas ay baam dund bu baree baree bare boo xam ne mën naa dem ba nawet bi jeex te du soxlaati dund li ñëwee ba ci buntu kër gi fekk timis gi jot fekk dañ ko booleeg waruwaay yooyu ak ngàll yi nga xam ne moom la ay mbokkam amoon ñu ak moom di ko indil yi waaye nag bu ñëwee ba ci buntu kër tasante sëñ Modou Asta génn ci kër gi di jëm ci jàkka ja waxtu timis ñu ko ñu ko yamee mu ne ko mën a mën a faat jàkk mu ne ko bul dugg ci kër gi de neen loolu rek la ko wax daal koy romb luy ci jàkka ja mu daal ne gaa yam àndaloon kon yéen mën ngeen a dellu ndax sama ndigal fii la ñu daal di wañu ko dellu mu mu diwut foofu bagaas yi fa fas yéene fanaan ci guddi gi ab taw suuf boobu mi ngi boot si ñoom sutu jaxate nee na dafa fuug suuf si bam bam bam ba mu kii mu tëral ko ci digg bi ngir bañ ndox mi agsi ci moom mu tëdd nag sexeer ko ñaari loxom kii mu ko ñaari loxom mu taw di taw di taw ba sewit ci fajar neen bi si muraas sa génnee ba rombaat ko mu ne ko ana kii mën a fa mën a mën a fa dem mu ne ko loo def fii mu ne ko dang dang ma ne bul dugg ci kër gi te waxagoo ma nu may def ma doon déglu ndigal mais mu ne ko xalaas mu ne ko man jàll ci biir nee nañ suñu suñu rosa bu ko daan nettali day wax ne keroog de saa bu sama xel demee rek keroog ma xam ne keroog am naa am naa am naa am naa kersa lool. ci la ko ñaanal nag defal ko barke bi mu ko defal nga xam ne da ko ñaanal bépp sët booy amatale na Sëñ bi doon doon doon ñaan loolu moo ko topp ba loolu kon day mel ne bokk na ci li ñu war a li ñu war a royee ci mag ñooñu kon roy ci mag ñooñu ku ko def rek yaakaar naa sa lépp mën naa mën naa baax góor ñi am na ñu royukaay jigéen ñi am ñu royukaay kenn ku nekk ci ñoom sëñ Saliou daan wax ne bu kenn ne sëñ Tuubaa mu ne su ko roy ndax roy sëñ Tuubaa taxut a mel ne moom waaye dana tax jiit sa maas kon nañ roy ci gaa yu baax yi fi nekkoon jigéen ñi roy ci jigéen ñi baax ñi fi nekkoon su ko defee rek lépp baax insha allah euh, sëriñ bi waxtaan am na solo lool lool lool day mel ne mbokk yi doyu lu ñu waaye dañ mel waxtu yi xam naa dab nañu xam naa dañ jox sëñ si wax naa rek kon su ko defee mu ñëw ci xes dëgg mujj gi sooy ñuy wax sëriñ bi mu tàggatoo ñu dal di waaj a yëkkati jataay bi insha ma dellu kañaat bàkkaar wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat te tànq ci gi jëm gi du su gépp te tibb ci xéewal koor dellu sidduwaat nawet baa ngi waamew yàlla waa ngi di wal fu ne looy tax mu sax meññit te loo gumu siqiwaat ku dëkkaale ak yàlla ngi nii bàjjo baa ngi nii kuréy ay jaloore ngi nii di qudwatu saalihaat samam kooma ngi sandamba ngi soxna jaarami di ko daay di waaj taay wow ku koy waaja taaru waat ku man góor ku raw kaa ngi ku rëy cër ku màgga ngi ku am yitte ak pëstëf ngi tey ku sàmm waat te sàmmoom ga ak njaxlaf ga yin moo di ganjëram ndewa saa bi xoona saa bi xoona ko daay gi waat te teggin la defu ko daay ragal yàlla di bu dundam mu war sàllu keer saayam sañ ci kër doy lu dëkke waat lii mu am duy kaf da ko jënd njëgu ndonook sonnu bokkul sonnu nañeen ma day mu far boole moom ñaar yépp daa ndam yu rëy ba far raw ñépp kuy jéema roy rawaat ta maay sëriñ bamba hëpp lëw amul woon te am nde wallaay day lu faat kañal kooka bakkal kooka way kooka moo ko jar ku dul bàmba sooy lañ bët mu feese kiisi yi aat te baaxam gu rëy gaa sunu bon di nëbbu nun rafet leem ga moo nëbbit sunu ñaawle ësikiyaat te tax nu am xiiwal ci sun tey di seenu yil lu raw loola ëllëg lii du wan loola fay ñëwaat ayaa yim na haa yaa sayxana yaa di meññetam mi du jee du xaaj na dil nu xiiwul yu rimbataat sunuy tuma ngi ru yaa ngi nii jëmmu yaa ngi nii jëbbal la gàddaay ñëw fi yow kenn du delluwaat ba tax yaanu moom moom xaleelun moom di say alal sunu yëngu ak sunu dal sunuy dund mbaanu faatu telew nan la doom it foo joxoñ foofa leen di jëm tuxulun gisul lu dul yow yees lu jigéen ñoo ña dëkkoon kenn amul woon ku mel ni te li ñëw ba yawmal asri kenn duutu amaat loolu la muy soxna jaara kemam amul te yi dootu am mukku mukku bu som nga dal di waat la des moo di xeeñ mbooram da koy sa kem taxi jot ka tuum naa seen ko rekk ëpp naa xalaat nde moom jur rasuulullaahi rek muy mébét ma woon ngir ak pas-pasam moo rëy ba yombu ceero keroog bam yéree kaamil ba yam ci waxaatimun nabiina dal fay fas mu kon ke ciy saat keroog bam yéree kaamil ba yam ci waxaatimun nabiina dal fay fas mu kon ke ciy saat te dox nag doxin wuy mu am loola ceeg wayam te jiital mbañum rusu boo ne ko muñ te tëkkuwaat basalal digganteem ak boroomam ci gépp wet te yàqul digganteem ak kilifaam ci farluwaat te jokkoon na ak mbokkam lu ñaawoon defar na ko matal digganteem ak ay dëkkandoom ci muamalaat gërëm loo na it ay bokki daaraam ci ay jikkoom ci yaatoog tabeek ab xar kanam sax ci biliwaat nanuy xeñtu kay jikkoom ya funtool lu jéem a roy te lun jëf rëy rëy rëy nanuy xeeb ko delluwaat te jiital jom ak way dox ba xëy jiitu kem ya woon danay tax itam ëllëg su bis baanu sidduwaat limub ak dundam laa def ba yiit yi taxawlu naa di na nga bañ nuy fàtte noo ngi sabab lu waat sëñ moor sa baa ngi joxoon nga ko mbir yu rëy tontoon na yiti cantam guréy na nga ko dolli وصلى على خير الورى ثم سلما وال وأساب برام بكي فلات ما شاء الله تبارك الله تبارك الله جرجف سرين شيخنا ci xasida gu am solo gi nga xam ne moom itam résumé na mboolem liñ doon waxtaane lépp di xasida yi nga xam ne mooy maam jaaro bi sëñ sëñ Mor doon jàng léegi nga xam ne at mu ne rek mu demee Poroxaan ñu ngi ko waxee léegi njàng mooy bi mujj def at mu nekk bi damay poroxaan dina def ak xasida ci soxna jaara tàmbalee ko atum 2008 ba ren jii xasida yi bu mu ci defit jox ko suñ seex naa mii mu di ko jàng njàngeen wu neex a neex yaakaar naa ñu bare bari ñu ngi koy faral di dégg bari na yu ci jàng bari na itam yu mu ci jàngagut waaye yëpp incha allah mi ngi ci yoon wi kon ñu ngi koy ñu bu baax a baax sëriñ Cheikh naa di ñaan suñu borom yàggal la fi wéral la wéral baat bi defal la tawfeex te li ngay wuti xasida yi lépp te la ca gën a màgg di ngërëm sëñ Tuubaa mu defal la ko ci barke Seexul Xadiim ak mboolem ñi la ciy jàppale ñëpp di la waxal ne mboolem ñi ñu seqal liggéey bi ñëpp sant nañ bu baax a baax ci teewaay bi eh, ak woyaf gi ak baax gi ndax ni ko sëriñ bi faral di waxe lii gën a neex murid yi ci yow mooy yar bi ak teggin yi eh, ak ak woyof gi ni ma ko waxee léegi kon ñu ngi lay sant bu baax di la jaajëfal bu baax a baax di di itam sëriñ Mor xam sa dina mi nga xam ne moom lañ seqaloon waxtaan wi di ko jaajëfal xam naa dañ koy jox kàddu gi rek moom itam euh, mu def kàddu yi tàggatoom incha allah ñu rajo yëkkati jotaay bi euh, jox digg daje incha allah ba altine ji ñu dëgmal ci beneen plateau incha allah. jël ah, jërëjëf sëñ Mbaye ñu xanaa sant rek. Mm-hmm. Euh, ñi nga xam ne ñoonu boole ci liggéey bu rëy bi. Mm-hmm. liggéey li tasaare xam-xam. Mm-hmm. dafay liggéey bu am solo ci yoonu murit mm-hmm. euh, te bari loolu nga neel ak yiw mm-hmm. kon ko da boole la ca rek kon yéen na la yiw ñu ngi sant baax kon nga xam ne ñoon woo ci liggéey bii mm-hmm. sant sëñ Seex naa baax baax di ko siyaar ci eh, njàng mu tege ci yoon wi ak li ci aju lépp ñu ko ñaan yàlla gën koo sàmm gën koo dëgëral euh, ñaan rek xool yi nu dugg dina ko ñaar ci njëlbeen ki suñu bon defal nu tawfeex ba nu àggale ko ci jàmm yàlla nangul nu ko te fëlal ko te yàgg na ko fekkeloo te bàkk Seex Xaadim salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa euh, jërëjëf jërëjëf sëriñ Mor Mbacke xam sa dina jërëjëf kon ci mbokk yi nga xam ne yéen ngi doon topp ci seen site TH TV Xidma TV Waarwi TV AVS Pro Asna Xadim TV Leeral TV ak Touba Tey TV li mooy seen plateau bi ñu leen jagleeloon tey jii ci altine le 4 avril 2022 incha allah di leen jox dig daje xam naa kon altene ji ñu dëgmal incha allah ci beneen jataay ak yeneen boroomi xam-xam ci beneen tomb bu ñu war a waxtaanee waat incha allah ñaan suñ borom mu defal ñu tawfeex xëy na ci am jub te saxal mu ci def ñu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa ñu ngi lu suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa lépp na الرحيم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 yaa rabbul musaafa seen boutique maxtabatu Tawfekh waa kër borom taayif nekk fii nag ci Touba indi leen lépp li ngeen yittewoo nag ci ay téere ak téere boo mën a bëgg yow mi bëgg kaamilu alxuraan ak kaamil boo bëgg moo xam arab bi kaamil Baye Moustapha Lo kaamil Serigne Ahmadou wala Serigne Asgede fii nga koy fekk loo yittewoo ci ay xasida borom Touba yi foofu nga koy fekk ak mool boo bëgg moo xam en couleur wala bokk noir et blanc dañuy it photocopie traitement de texte impressionné ay badge waaye am nañ fi ay baylaat yu murite te moxtaare am fi it ay baay son bu ay abaaye ak ay jàllaabi yu mucc ay yamuñu foofu bopp indil na leen ay laafa original ay marakis daal li nga ay bàcci sax ay daali turki ak parfum bépp xeetu parfum boo bëgg rek doxantul fii sa aaja faju yow mi yor élève buy jàng bul jaaxle lépp loo bëgg ci ay fermeture boo demee maxtabatu tawfeex waa kër borom taayif sa aaja day faju moo xam livre boo mën a bëgg arabe anglais ba ci sax français dañ leen di jaayit ay kurus yamuñu foofu indil nañ leen nit ay njaq yu baax ci ndoxum siti émurit dañu sa jaay ngeen mën leen woo ci numéro téléphone yi 77 204 44 63 wala 77 856 wala 76 793 am na nuy place centre commercial Serigne Fallou ngeen mën leen woo ci numéro téléphone yi 76 587 11 86 wala 77 787 21 47 ak maxtabatu tawfeex waa kër borom taayif aji yéppay faj غلاما أعوذ بالله من ميلي لغير رداء خلكم ترانسبورت Khelcom transport di kuréel gu taxaw temm ci askan wi di dem ak a dikk ca na mu gën a selle looloo waral wutal nañu leen ay daamaar yu mucc ayib confortable légal taaru am sécurité xew moo mën a am ak foo mën a jëm ci biir dëkk bi wala biir réew bi màggal gàmm céet wala ngénte dañ laatu tudde ngay def délégation ana ndayale yi ana jàngkati xaside yi ñoo moom oto bi lii gën a neex fukki place mën a jël bagage da ngaa bëgg a ziyaar lenn ci jeexiti borom Touba da ngay dem Njaareem Mbàkke naawel ceyeen jola fu mën a doon waaw waaw roy du nuroog biir oto yaa ngoog xelkoom transport ka koy dawal ndongal xelkoom Serigne Saliou Kanji bismillah dem jàmm dikk jàmm xelkoom transport oto bi daal jàngkat yi kuréelu xasida yi ñiy dem ak a dikk ñiy siyaare ji ak fu ñu mën a jëm ci biir dëkk bi wala biir réew mi danga cee bëgg ay leeral jokkool ak ñun ci numéro téléphone bi 77 682 95 51 wala 76 879 60 05 Xelcom transport mooy ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak Xelcom transport da ngay dem jàmm dikk jàmm te ànd ak dal série sopp Serigne Fallou Boulanger Serigne sopp Serigne Fallou nekk ci arrêt Ndiané ci route allié bi di defar mboolem xeetu mburu yi mburu normal am na baguette am na pain au am na leen am na croissant sax dañu koy defar yéen ñi bëgg mburu moo xam abonnement wala événement ku bëgg a bindu ñu jële ko yëpp bëgg set weer wu ne nga fay événement maanaam xew woo mën a am boo jokkoo ñun def sa commande danañu ko traité yónnee la ko ca na mu gën a gaaw waaw waaw Boulanger Serigne sopp Serigne Fallou nekk ci arrêt bi ci route allié bi danañu def defar mburu normal baguette madeleine croissant ak lépp lu jëm ci xeetu mburu la ca gën a neex am na ñu poulailler bu mag a mag quantité boo mën a soxla ci ay ganaar foo mën a nekk ci biir dëkk bi poulailler baa ngoog ginaar yu mag ànd ak wér gi yaram ñu di leen toppatoo ñu jëfandiku bu baax di xool seen dund seen wér gi yaram danañu la jaay defaral la ko andil la ko ak foo mën a nekk ci biir dëkk bi da nga cee bëgg ay leeral moo xam mburu mi wala ginaar yi jokkoo la ci numéro bii 78 470 79 79 80 wala 76 475 41 30 bu la séeri sopp Serigne Fallou ak poulailler Lamp Fall ñooy ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak koor gi seen dund day neex salaamaaleykum mbokk yi lu bees épicerie al mu mubarak ñëw na ah, waaw waaw boo dikkee di nga fiy fekk pâtisserie épicerie charcuterie ak cosmétique ma ne lépp loo bëgg ci mbirum épicerie ñëwal épicerie al buqatul mubarak da ngaa bëgg ay fruits ñoom pomme ñoom banaana ak ñoom seen ma ne danga am màggal wala nga am événement bu rëy bëgg ay boissons wala ay fruits ci njëg bu xéwalee ñëwal épicerie al buqatul mubarak bu dee ci wàllum koor gi ah indi nañ bagage yu mucc ayib. ah ah ah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 la ci Touba Belal kenkaayéeri fii ko jàpp foofu la lu baax suuf leen te ku liggéeyul ñu jëm pile ci daa